ñëw na daal di taxaw li nga xam te ne mooy ci kaw oto bi daal di ak ay supporteram wane ni pare na ndeysaan mi ngi noonu lancé roi des arènes le tombeau de Tafatine le tombeau de bomb Yakhya Diop Yékini mbokk yi xale bi ngeen di gis doomu doublé si pare na tey ñëw na daal fëgg dërëm sàmmante ak ay supporteram yéen a ngi dégg coow noonu gars di yuuxu pare nañ pour accompagner seen mbër vers la victoire Balla Gaye numéro 2 de Guédiawaye le de Double Balla numéro 2 mi nonu noonu mbokk yi mi ngi sax moo teg ay supporters numéro 2 le fils de Double qui s'est montré très confiant pour le combat revanche contre Modlo le 13 janvier inshallah hey mbokk yi yéen a ngi dégg coow li noonu Balla Gaye 2 mi ngi noonu di dem di sax moo teg ay am ñu daal koy accompagner mbokk yi boo leen gisee li seen yaram wara daw ngeen xamni dal lamb amna ci cër bu baax comme niñ koy waxee lamb xalé bi amna ci cër mu doon xalé bo xamanteni ñaar at yim tok bëreewul. lamb ji xaw na doon ci ay jafe-jafe mu ñëw marqué retouram yaay yaakaar naa ni mbokk yi liigum doyul daal dara du la doy hey Balla Gaye numéro 2 le lion de Guédiawaye mi ngi noonu mbokk yi di saama ndak ay supporteram le lion de Guédiawaye mi ngi noonu mbokk yi hey doo doomu Double Less ngi noonu tàllal na ñaar loxo yi ni 2-0 nen na seen xel dal pare na bu ñu am dara lu ñuy jaaxle Balla Gaye numéro 2 mi ngi noonu mbokk yi rëy Balla Gaye numéro 2 le fils de Double Less mi ngi noonu le tombeur de Tapha Tine tombeur de Yaxya Diop Yékini mbokk yi mi ngi noonu xale bi nga xamante ni 2005 la dugg ci làmb daal di marqué empreinte doon roi de arènes xale bi nga xamante ne mbokk yi tey kenn mënul tudd làmb te doo ko tudd mbooloo mi nekk ci ginnaawam daal doon mbooloo mu jéggi dayoo tey wane waat nañ ko saa yi wootee ñu daal ko wuy si waaw Lamine ma bàyyi nga am loo ci sànni Lamine. mbokk la dugg see. gis waa Guédiawaye daal di dugg si Balla Gaye yëkkati loxoom na 2 lu mun a gum jàpp mooy Alaaji Candum Guédiawaye daal tey wane seen bopp ma jox la nga ji biral mbiri waaw Lamine comme ni nga ko waxee rek Balla Gaye numéro 2 pare na mi ngi tàllal ñaari loxoom di saafoon ak ay supporteram noonu le fils de Double Less le lion de Guédiawaye le tombeur de Yaxya Diop yi mi ngi noonu très confiant Balla Gaye numéro 2 à trois jours du combat Balla Gaye 2 wane na ni pare na mi ngi noonu di def le tour du stade accompagné collaborateur Sa Thiès ñu ngi koy apercevoir noonu ci kanam mbokk yi Balla Gaye mi ngi noonu xëy la lion de Guédiawaye xëy la 13 xëy la combat revanche Balla Gaye numéro 2 bu ñu dara lu ñuy tiit cey mbokk yi Lamine man daal jaaxle naa boo jaalewul ndeysaan mbokk doomu ndey kay jur tey gis nañu champion wu Guédiawaye yëpp daal ñëw soutenir Balla Gaye daal li ma mën a wax mooy lu ma lay wax waaw liñ mën a wax rek mooy le message est clair Balla très confiant, qui s'est montré très très confiant. Il est prêt pour le 13, Salah. Sous la forte ovation de, son, de ses fans, le va Amadou est mis en ébullition par le Français de sa pièce. Après être enfermé à Paris, elle travaille dans au, sein de l'Institut de Paris. Le voici Balagay numéro 2, aujourd'hui, qui est à Paris, sous les nombreux, sous nombreux sous les yeux de ses nombreux supporters. Il est prêt, il est confiant, il dégage de la forme, il est très très envers au Balagay numéro 2. Vous entendez les cris